exploitation pétrole euh, bu Sénégal. ñu ngi teg ci sa loxo euh, li nga xam ni toq la ci pétrole bi juddu ci suufu Sénégal la ci ndoxum Sénégal muy bi jógee ci Sangomar euh, kon bis ni ki tey ñu jàpp ni Sénégal dugg na ci kuréelu dëkk yi nga xam ne bii ñu ngi ay am togg pétrole wala li ko génne seen suuf war ko mën a jëfandikoo mu jariñ seen askan. yàlla mi ngi dogal mi ngi nekk ci sa ci sa ay la ko yàlla defee yàlla na jural jàmm Sénégal. amiin amiin di sant yàlla ba mu ñu ko wonee fii ci suñu réew ndax yàgg nañ ko wër sant yàlla aussi ci bu mu tombeeg suñu ay te di ko ñaan tamit mu jur barke ak naataange ci réew mi di leen ndokkeel rek yéen ministère de du pétrole di ci ndokkeel gouvernement bi yëpp ak euh, sous la conduite du premier ministre di ci ndokkeel tamit askanu Sénégal mi nga xamante ne moo ko moom te ñu di leen euh, digg na rek dinañ ci dañ ko saytu ci nu mu gën a rafetee ak ci nu mu gën a baaxee ci pour njëriñu Sénégal yi fi nekk ak Sénégal yi ñëw ëllëg incha allah. gisement Sangomar rek ñu ngi nekk ci géeju Sénégal yi euh, fu toll ci téeméeri kilomètres mu nekk nag réserve bu am solo boo xamante ni exploitation bi dina tax ñu am téeméeri junni ak lu topp ci wàllu baril bis bu ne production bi nag. wara a jur koppar bu bëri ay milliards du dollars waaye tamit am ay njeexital euh, ci nekkinu réew mi muy ñi fi jamono yi waaye tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy wuutu ëllëg.